vraiment que ni aussi def mu mel ni que ni ni ngeen tari da ngeen ko ñëw tari ko non match bi dañ ko yàgg parce que gars dañuy yàgg solo duñuy woo téléphone duñu menacé xam nga def nañ façon bu nekk mais tey dara baaxul dañeen nañu dañuy ñëw Thiès fekk si leen añ sañ añ lekk ba suur naan seen naan te def ko alors débat bi tey li ma doon ko waxtaan ak acteurs yu bari mooy que Sénégal bu njëkk star yi euh, les joueurs de football moo euh, les artistes musiciens mais dañu gis depuis un certain temps depuis quelques années cinéma wala théâtre bu Sénégal dafa et que euh, téléfilms sont de véritables stars doo partagé la non mais je suis d'accord avec vous hein. en fait c'est pas seulement le Sénégal c'est partout dans aar baa ngi fii xam nga joobu bureau yaa ngi fii lépp a ngi fii te lu nekk rek bu yoo xam ne day bëggal gars yi c'est vraiment plaisant pour que certaines personnes puissent apprécier et puis vraiment se concentrer et faire des financements dugal xaalis bëri si liggéey di si tedd di si di ay waajur def lépp avancer quoi waaw xale jigéen ñi tamit bëgg nañ def cinéma ba des fois ñu dégg aussi tamit yenn affaires yi nga xamante ni dafay secouer un peu ñu mën a am yenn rôle yi euh, est bon je vous dire une chose xam nga tey nous pourquoi gars yi di wax si acteurs yi. parce que nous sommes au devant de la scène. mais li ñu naan promotion canapé du ma ne amul fenn de mais mu ngi fépp tey maa ngi si milieu am na ay gars yoo xam ne carrément dañu siy profité pour naxalee jigéen ñi nga xam ne carrément dañoo bëgg ñëw pour siw wala dañoo bëgg ñëw pour job si affaire bi mais tu vas trouver ça partout dans le monde tu vois même dans les bureaux même dans les certaines entreprises fépp dem ba xam a avancer dina am promotion canapé léegi ñi tey ñoo war xam ne carrément lii moo la fa indi da ngay am mun nit mun la respecter pour ëllëg waaw ku nekk yaa xam la moo la indi si ni da ngay fula quoi tu vois man c'est ce que j'ai commencé comme ça que moi je vois les choses waaw. yow mi ci nekk ci milieu bi comment se passe un peu casting mën nañu xam euh, casting yi naka ngeen koy organiser aujourd'hui ak yan profil ngeen di utiliser gis nañ que ne tamit xale jigéen ñi daanaka Sénégal ñoom ñëpp a xees ñëpp a est-ce que parce que boo xoolee sax des fois parce que moom la demander ci téléfilm yi et que ñoom <coughs> mu jël la nga liggéey léegi nag am na nit yoo xam ne carrément dañuy xaw a complexé du sax complexe affaire de casting la mais complexe teint naturellement la en fait parce que ñoom balaa ñuy dugg si cinéma bi sax nañuy commencé di changer seen ay teint bu fekkee wàll boobu ngay wax après le casting la quoi même nous des fois on fait des castings gars du ñu jël tu comprends ce que je veux dire. c'est par rapport au rôle. c'est par rapport au rôle c'est par rapport au profil c'est par rapport à ce que à ce que tu vas incarner tey man mii mën nañu ñoo joxoon benn rôle am carrément def casting ça a pas marché bien vrai que man yàgg naa tourner série yi mais bu fekkee assuré wu ma dañuy woo keneen ku assuré jox boobu noonu. Habib ah, noonu la demee c'est très aussi que ne maison de production yi tamit bari nañu <coughs> producteurs yi bari nañu ak concurrence bi par rapport même ak li nga xamante ni moom mooy euh, les publicités les partenaires euh, ci côté boobu tamit est-ce que yaakaaroo ni que ni aussi tamit mën na rendre affaire bi malsain ba nga xamante ni ku ci nekk da ngay xool li nga xamante ni tey moom mooy dox euh, par rapport aux valeurs par rapport à notre culture. mais comme avant il y avait une maison de production ou deux ou trois léegi lépp a ngi élargir parce que gars yi xam nañu carrément c'est un projet euh, du de, de, donc ñëpp a liggéey ñëpp a ngi siy teel donc ku nekk day xam ne carrément lii c'est quelque chose de bien et ça fait avancer les choses tu peux y gagner de l'argent tu peux y gagner beaucoup choses donc ku nekk dañ si ñëw dugg après ñi siy dugg nag yow mi sa bopp yaa xam la moo la si duggal ak loo fi loo loo fi ñëw ut si foofu laay waxee fa fa laa fa la fa laay waxee tout bi yaa xam moo la fi indi ak nga nar def waaw pour pour gars yi du ñu mën a yàpp ëllëg quoi waaw. en tout cas merci beaucoup. sant ñoo lay tamit. jaajëf moo gagné 2 buts ni que ne tey revanche ngeen jël si woon Thiès am ngeen ko. non waa gis nga yow xam nga sax nekk nga ma woo ma ne la ñëwuma. <laughs> waaw xam nga sax. Eh, boobu dara ma woon waa Thiès tey ma dóoroon tey ma nelaw. Eh. la dernière fois bu ñu fa bëlee Thiès jàpp ma dóor ma ndax amatuma jàmm. amatuma jàmm fu mu waxee ñu ma eh ma noppi tey nag ma fekk leen biir Thiès eh. fekk si leen dóor leen. ñoom ñoo leen fekk si woon dóor leen. dóor ñu yéen ngeen fekk si leen tey leen. daf ko way naa ñëw ba euh, vraiment ñu rafetlu ko ah, euh, ambiance ak relation bi nga xamante ne am na diggante artistes yi Dakar ak artistes yi Thiès mu mel ne que ne artistes yi li gars yi foog amul benn problème diggante. non non franchement parlant parce ñun sax souvent ñun artistes yi suñu biir ñun ñooy créer genre événement yi parce que bëgg nañ xam ñun ñu bari d'habitude si télé man genre événement yi day baax pour ñun ñëpp ñu mën di gisante ñuy xamante parce que tey boo demee ci banque bi da nga kii mooy collègue kii ñun artistes ñu ñëpp ay collègue nañu moo tax dafa rafet ñuy xappi di kaf di foo ree tey bi nga ñëwee gis naa fi yenn artistes yoo xamante ne amuñu woon occasion gisante mos ñu bokk plateau mais fii lañ xamante kaf nañ fi foo nañ ree nañ eh, eh le meilleur a gagné le meilleur c'est Dakar on a meilleur Sénégal on a gagné alors ñu gis que ni théâtre au Sénégal des fois critiques yi day bari lool sax yéen acteurs yi ci yenn scènes yi nga xamante ne da ngeen koy la euh, naka ngeen dundee critiques yooyu la. waaw waaw parce que xam déjà rek boo opté nekk acteur préparé pour recevoir euh, critique bu nekk. parce que dafa nekk milieu boo xamante souvent li mu rek ñun acteurs yi dañoo sacrifié sacrifié mooy laal des euh, nekkul acteur bi en personne. scénariste bi mooy xool benn rôle ba léegi ñoo comprendre lul personnage ak la personne loolu mooy problème mais bon critique moom moo mun see ñàkk moom moom franchement kuy liggéey nag critique yi des fois day tax nga avancé des fois day nga gën a wàcc suuf mais star ya ah, bu njëkk Sénégal boo nee star musicien yi wala wala wala mbër yi wala football kat yi mais léegi Sénégal boo nee star léegi c'est de cinéma non man non man wax dëgg fa yàlla gëwuma ko nag franchement parlant parce que du star lu meex souvent rek comme le sama menk naa gën juste que dañoo nekk ci milieu boo xamante ne dañoo fës yaa ngi comprendre milieu boo xamante ne dañoo fës gars yi képp kuy acteur nekk ci milieu bi le mot star teg ko nga nga teg ko feneen parce que liggéey la comme liggéey yëpp yéen tey yéen a ngi liggéey yéen ñii yéen journaliste yi mais yéen ñun la yàlla nattoo ñuy feeñ mais nag kon buñu jël mukk wax star ko ci kaw ñun daal nañuy liggéey pour bëggal askan bi nañu liggéey pour conseil askan bi nañu liggéey pour wan yoon baaxi askan bi alors lan la Sénégalais yi mën a xaarandi par rapport ak production yi waaw maa ngi ci ah ñu ngi ci wa wax dëgg fa yàlla instant bi maa ngi làkkatu man deux mois mi ngi nii wax dëgg fa yàlla maa ngi nekk suuf fa di liggéey ñu ngi liggéey de léegi mu tàq waaw waaw dóor waar rek <laughs> lépp pour bégal nit ñi uh-huh. fan si xarit am di jàmm en tout cas bég nañu waa Dakar encore doon nañu nga xamante ni tamit ñoo leen di seetaan aussi kontaan nañ ci euh, ma am rek mbir moom la bëggoon laaj bëggoon ci waxtaan ak yow parce que quand même je pense que ne question bi bari na aussi sénégalais yu koy posé bu ñu gisee léegi euh, xale bu jigéen bu jug wala xale bu góor bu jug rek bëgg a def théâtre euh, mel ni que ne théâtre léegi dafa am xaalis question boobu bëggoon naa nga leeralal ñu ko un yow mi nga xamante ni yàgg nga ci affaire yi gis nañu la tamit da ngay tourné lu bari bari théâtre bu Sénégal xaalis non théâtre bu Sénégal moom amul xaalis soo bëggee dégg dëgg nag laalo li tax ma ne la amul xaalis man yenn comédien yi may dégg ci yeneen réew yi cër bi leen gaa yi jox ak état ni mu leen di jàppalee ak buñ nee la immeuble bi benn comédien moo ko tabax wala ñu ne la oto bu cher bi benn comédien moo koy dawal ci yeneen réew yi non soo ñëwee Sénégal da ngay da ngay da ngay da ngay xaw a xeeb sa liggéey da ngay xaw a xeeb sa bopp vraiment mais bu ñu gisee bu ñu gisee théâtre yi ak partenaires yi sponsors yi ak aussi luxe bi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi ko ciy wane est-ce que nekkul naxaate kon d'une part. waaw ci benn côté bon doo comprendre par exemple saa nga ne ci producteur bi la par exemple saa nga ne sponsor bi moo joxe lii ak lii ak lii li mu joxe bëriwul affaire dafa xaw a lëndëm ci biir dafa bëri affaire yoo xamante ni dafa am ay naxaate daal ci biir. nit nag ñun mun nga euh, mun nga gis comédien bi nii nga yaakaar ne moo bi àdduna ak li ci biir gaaka moo ngi sant. moo ngi liggéey moo ngi am tuuti weccit moo ngi yor këram loolu rek sant yàlla la parce que wax dëgg yàlla su la yàlla xëyee jox la euh, loo mun a dugal sa kër jox sa njaboot ñu lekk loolu da ngay sant bu baax mais comédiens yi ni leen war a jàpp lii dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg barki Mouhamed amul non dafa des lu bëree bëree bëri. mais faute bi ci kan la ci producteurs yi la ci nguur wala ministre ñi nga xamante ne ñoo yor culture la wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, ñi nga xamante ni ñoo leen di seetaan je sais pas mais problème yi tey boo ko doon listé yi euh, nga xamante ni moom mooy euh, problème yi tey fan la fan la. non ñi ñuy seetaan ñooñ seen yoon newu ji hmm. saa boo boo booy booy joxe toor bi tey danga koy joxe ci ci côté état nga koy gën a joxe état jàppale des nañ jàppale comédiens yi quoi ma koy njëkkee ci ministre de la culture fii ministre de la culture yi fi jaar yëpp doo mu a dégg ñu ne ministre yi wala état génne na ay milliards tey jii def ko ci cinéma wu Sénégal doo ko dégg mukk du doo ko dégg duñu leen jàppale affaire bi ci état bi la njëkkee wàcc ci producteurs yi tey producteur da ngay gis ku la war a mën a fay benn 1 million wala benn 500000 yëkkati benn 200000 fay la ko benn 200000 lan la mënal benn doom lan la mënal doomu aadama bala ngaa yegg sa kër mu jeex kon Euh, entre comédien euh, producteur bi ak ci état bi ñoom ñaan ñëpp am nañ ci part de responsable. lan ngay wax nguur bu Sénégal ci côté boobu. mu mu gës comédiens yi parce que xam nga ñun ci réew mi lañ bokk. sàccuñu fenuñu jaayuñu lu bon. ay comédien lañ di def ay cinéma. comprendre état na jàppale comédien wu Sénégal yëkkati xaalis bëri di leen financer ñuy def ay produit ay ay ay ay ay produit produire ay ay ay ay bagages yu baax comprendre comme yeneen réew yi nu ñu koy defee ay Burkina ay ay ay ay ay Mali tey ji boo demee ñoom seen comédiens yi fu leen neex la ñuy tukki ci àdduna di yor xaalis bu weex taal di tabax seen i étage mais tey ji Thiès fii di nga gis benn comédien boo xam dina la def naa ci théâtre vingt ans te amugul terrain bu baax mooy lool ñi ngaañu théâtre bu Sénégal des fois bu ñu gisee série yenn séquences yi euh, ci xale jigéen ñi lu ci mel ni ay sexe wala yenn affaires yi ñuy wane est-ce que loo partagé la ak ñoom est-ce que gisoo ni que ni génération bu bees bi des fois euh, dañuy xaw a rax ci affaire bi ay mbir yoo xamante ni bokkul ci théâtre. bon jànguñ théâtre mooy ñu jàngul théâtre xamuñu théâtre defuñu formation xamuñu la parce que dañu xëy rek ñu casting leen indi leen defloo leen téléfilm nit ki bu bëggee jaay produit am lu ko neex mun na la koo def loo yow nga nangu ko génn sa cër génn sa awra def lu la neex bon boole ceeg wax yu xaw a virgule parce que jànguñu ko ñun nag théâtre bi moom yàlla dafa def dañu koo dañ koo jàng xam nga doo toog ci télé ba dégg ñu ne dërëm gaajo tey génne na awraam wala wax na benn wax bu ñaaw a ñaaw boo xam ne dina gaañ doomu aadama duma ko def parce que théâtre jàngalu ma lool ñoom dañoo xëy rek ñu casting leen dugal leen def leen euh, dugal leen ci téléfilm téléfilm la ñu def defuñ théâtre waaw loolu la defuñ théâtre bokk nañ ci nag ñuy gën ñu yàq théâtre bi ñoom bokk nañ te mënoo leen cee génne yi la mooy actrice yi mooy actrice yi waaw mooy actrice yi rek daanaka jigéen ñi sax laay gën a laay gën a balaame lool parce que ñoom ñoo fi nekk bëgg a jaayu comprendre nga sol lu toll fii nit ki xool la comprendre nga ba war a miir ci yow war a yëkkati xaalis may la war laa invité dëkk ak dëkk affaire yooyu parce que loolu rek moo la ci dugal soo demee ba am ci ba am ci li nga bëgg bàyyi nga dem nga sa yoon yàq nga liggéeyu jàmbur dem nga sa loolu rek moo fi am. mais loolu est-ce que yéen tamit waroo jug yéen ñi nga xamante ni ngeen ci affaire bi et bu yàqoo théâtre bi mën naa ni que ñëpp la yàqul na bon ñun wax nañ def nañ luñ man mhm. mais xam nga tey boo ci waxee ñu ne moomu leen théâtre bi comprendre nga moomu leen théâtre bi lañ lay wax fii nit ku nekk wër wërsëgam lay jël am na producteur yoo xamante ni tey duñ bu ñuy def casting duñ casting comédien yi ñeneen la ñuy dem defi ji ay casting ay man mannequin ay ñeneen ak ñeneen jël leen joué leen film ñooñu loo leen defloo ci àdduna dañ koy def tey jii man boo ma jëloon di ma géeloo benn affaire bu virgule bu garaaw duma ko joué parce que théâtre jàngaluma lool man alaa jërëb gaañ comprendre mais ñun wax nañ def nañ luñ man soo ci waxee yenn wax yi dafa soxor dafa lii daa laa amu ci lii moo tax muy soxoree nit ki bàyyi leen so yooyu rek lañ lay wax yooyu rek lañ wax moom yaa gën a fi waaw waaw mais moom ngi noonu kontaan nañu bu baax baax di nga football ci man nag bàyyi naa football <laughs> bàyyi naa fu de dama caamoon bis la <laughs> tiwaaw tiwaawan la woon uh-huh. man daal fu benn match boo buñ tëggoon entre Thiès tiwaawan uh-huh. man daal may dugg gars dugal ma ma war a mooy genre ponk lu mbër yooyu nga xam dañuy alteeru ba toll nu leen neex gars yi centré ma bal bi ma dem bay mbëkk waa ji tëb ma jéggi ma laal sama loos bi mën a këlëb